mais c'est honte man de damaa ne ñu defar vaccin bi dañ ne ko vaccin ci vaccin bi dootoo amati feebar bi nee nañ loolu mun ñu ko du la wàll ñoom it loolu nee nañ duñ ci jël benn engagement mais xanaa kon ñàkk bi ñoom xam nañ yan jeexital ci nit ki xamuñu yan jeexital lay am ci yaramu nit ah? yi Sénégalais di dute ñii commencé tiit le 23 février ñu def première campagne bi. problème yaa ngay démarrer la problème yaa ngay démarrer la. pour man sax combat Balla Gaye 2 lay amal stade arena ci huit kilos. non lan mooy huit kilos ak grand kilo. wala genn waa libre kilo. <laughs> ah Balla man kat damaa toog dégg kuy reporter di mel ne El Hadj Bekkaay. man la. man moom sama yaram bi piqûre ci boppam la ñemewul ndax ñàkk yi dafa nuru lu saf trop. ñàkk ah, tamit ni tiiru si daan ci loxoy bu fon. ñàkk bu sedd la du baax. vaccin bi ñun doyuñu. li moo tax ke sénégalais eh, ko ci laaj ndax da ngay ñakku li la lay tontu pikiru ma de yow tamit mba di nga vaccin wu xalaatuma ko sax yow nak di nga ñakku man duma ko def kuma yilif suma ko yëgee duko def sénégalais eh, bañ nañ nak il faut ñu créer ben contexte bu tax nit ñi nango ñakku mais est ce que contexte tax dina tax nit ñi ndax te di jërewul ma fi waxoon ne ñàkk bi ñak population mondiale bi fi dof la ñom gis nañ ni sénégalais yi du adhéré wuñ ci vaccin bi parce que da ngay gis sax vidéo yi niñ koy jallalé ku nek nan bo ñako dégg. <laughs> président man mom lenn rek la la laaj indi nga ñàkk yi Sénégalais ñom nee nañ ñu vaccin légui yow lan moy ci sa xalaat. Ah, si on les prend pas moi je vais les donner à d'autres pays africains qui en ont besoin. Hein? président mu ni. qu'on ne prenne pas les vaccins si on les prend pas moi je vais les donner à d'autres pays africains qui en ont besoin. te ñàkk yi moom tel na def effet di. président waaye wooteel dialogue rek jëm ñaajo pour nga waxtaan ak Sénégalais yi ngir nga bañ koo maye. du ko def du ma ko def. ah bon doo ko def. pour respecter les gens yi. ah kon boo xool loo nekk ci vaccin rek nga def ko. <laughs> ginnaaw bi ñu jógee ci santé ñu daal di ne saraax ci situation dëkk bi nag. ndaxte man situation dëkk bi ak fi réew mi toll dafa maa mujjee jaaxal man. daal loolu jaaxal na ma. teg si ëpp doole képp koy yeewoo si réew mi. loolu dafay ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier. mais c'est bizarre. moo looy laaj. xeetu tëj-tëjaan yi nguur gi jël loolu pour lan la. ah loolu jaay doole la. di wax monsieur le président man damaa am noo métti ngay dox dox ñaxtu ñu jàpp la tëj la loolu pour lan la. ah loolu jaay doole la. mun daal si suis peur daal. te pourtant yow mii yaay fi waxoon ne. si génne arme bi da nga maam génne police ak gendarmerie si ay ñoo xam ne ay civil lañu ne dañuy dem toog ñaxtu kooku dafa nekk lu jégg dayo lii lépp tey yow mii yaa koy def. gis nga nit boo leen jiitee da wax dëgg. Baye Diop ñun kay dañoo toll ci réew moo xamante ni amatul wax sa opinion. lii baaxul ci réew. lii kay moo tax kenn nanguutu ta wax xalaatam. waaye dëkk bi li fi am lii lii lii dafa doy waar quoi. fii da ngay jël sa caméra di tourner sa vidéo sax si prési sa yaay bu déggee turu prési rek sa instant commencé naa jaabante sa néeg nan. kooku du zaal mbaa du ki ngay wax ci moom lay wax kay. xamal ni ngay waxee ndax ndaxte instant bi ñaari sénégalais sax bu ñuy taxaw di waxtaan dañuy kal ndax ndaxte instant bi Sénégal mi ya jabe ma rek la may saf waw dina ci bàyyi xel xamal ni ngay waxee dal en tout cas ndax te lu may indi añ waxna naa la ko daal nga foog nekkon Sénégal li fi xew ni kon jamm la la démocratie est confisquée néewal doole ak ko upp doole won ko ko est ce non lay yore rew kooku kenn du ko yore rew quoi wax deug yalla rew boko yore ay way bo jekko nga la del balé wala sax ngay jéggale di jëlale ba paré fitna bi metti na trop ci ñun way ño xamanteni ni bo signé sax japp né na yaay wax ak ñom ñu japp tej pour lan ku tok place de l'obélisque sax di relax mu guéné armée bi dara xewul loolu dañuy dem tok place de l'indépendance nga na nga guéné armée di armée bi boko guéné foko foo ci peuple té ku ne xamna né soldat fédéral yorul grenade lacrymogène yorul leneen kon dama ne nguur gi nañu yem. allahu akbar pourtant moom miy wax lii de instant bi moo ñu yiite. Sénégalais yi ñoo war a yeewu léegi. problème bi est-ce que nekkul ci ñi ko wër kon. Macky Sall ñi ko wër dara. ku si mel ni Moustapha Niass 1960 ba tey mi ngi fi comme arc en génération bu ñëw mu ànd ak moom. daara nga si mënul. dara bu la nexé nga tonto ma ni nak parce que ya fekkee dembu fekkee tay au moins di ngeen ñoo nax ñun peuple bi ba yeur rew mi ñoo leen tané mais yow sa bop ngay nax jël sa bop diko ruuma naat ci biir xalé yi bëgg def sa bop xalé te yow xam nga ni mag nga leund da nga yag mais wax nga sol sa trois pièces di woote mbayum supame waxatuma nga sol ver brand toppandoo Harry Potter yow arrête dara nga fi mënul yow lenn rek moy fi bay lenn rek muy bëdd bi may xoolee sama papa la lay xolé lolo tax duma la wax dara un point entre yow xam nga fi bàyyi de. kii dof pilis la. ah dee bopp moo fi bàyyi pas intérêt peuple man de lii wax maa yéen loolu wax. waaw ah, man ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. <laughs> bu ko defee suñu maam mën na def ñan.